nit kon kon yéen ñii yéen nekk si gis Tuubaa ba nañ ci am fulla am si fayda nga xam ne fii ku takk sa baag yii takk sa loxo yii teg la si kusi bàmmeel bii li nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa rek mooy jariñ li nga a ko tekkee tànk seen loxo yi teg ko si kaw jaag bii dugal ko mu dalee Sëñ Tuubaa gis nga boobu moo ko gën a si gis bu sax ndax xam na ne liggéey Sëñ Tuubaa bu ko def Sëñ Tuubaa fay kon nañ ànd si liggéey Sëñ Tuubaa nekk benn di bo di xàcc di dóorandoo bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo te xam ni liggéey Sëñ Tuubaa bii si barab Sëñ Tuubaa bii si poosam Sëñ Tuubaa moo wax si njaareem sama dëkk ba Tuubaa ko nag asat naa la ko fay ay pare si diggaaj la ñun ñëpp ajam nañ kon liggéey bii sëñ bi digle mooy suñu teraangay àdduna suñu teraangay da ngeen ko suñu jaayante jëlu ko waaye sëñ compte maa jabar fii li ko waay jël soo ko tubaab jëlaat nañ la ko dee jël te bis takkee sa tànk yi gas ba mu la li nga xam ne da nga doon def suñ tubaab rek yow ndax fuñ jëm dara a fa dey fuñ jëm dara du fa dey kon jaayante waan leen takkuwaan leen laxasuwaan bokk si kuréel gi parce que li ngeen amaat li ngeen yor lépp ngeen jébbal ko suñ tubaab ndax suñ tubaab moom gas suñ lépp jël sa bopp jébbal suñ tubaab rek sa xel day daal ah ba nu fu suma taxal axal bi yoon dunya wa uxra saaki faturat na seen xel am mooy li nga si liggéey bi ak nekk si bëgg-bëgg bi te yéen si bëgg-bëgg si liggéey bi yéen waa Bayal bi ñu ngeen ko defee noonu la ko sëriñ bi kon nag nañ nañ bu baax a baax a baax ànd suñu mag yi wul yi ne bu retraité doon am ñoom dañuy retraité yoon bi kenn suñu retraité nañ xam ne sëriñ Tuubaa jaamu yàlla na digle ak xidma ay nan wa baa ak wa daalam la yasaaru bii xaaqul wa daalum ba ñu mu xam la ko yàq loolu la wax damaa ko sii man ko tëddal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal bu daj bi fekk foofu la sëñ bi nekkoon kon ñun nañ nekk foofu yow yow sëñ bi ngir bëgg sëñ Tuubaa kenn xojagu la ngir bëgg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa takk nañ ko karaw bopp bi ba tànk ba tànk ba wewu tànk bii ngir bëgg bu mbëgg Rasulullah di ko bi takk gas nañ bax ba mu di dugal si ngir bëgg di bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wa bi wax na dam mii fii daa um li xuruj yi dam mii wa mara di suñ tubaab bàyyi mu lekk góor gi ko góor sula sala sala benn ma nga ko indil gura si njaareem sëñ bi ne ko noosi jublu mën ko gis nga xemeen gura suñ gura bu si kër gi génn la ko gas ko suul ko ñu gura yëpp gas ko suul ko sëñ bi billahi inni li nabi abadan xillun wahibun wa ma abaahu yabaa nabiyuna al mustafa gayra wala arabin fi kulli shay'in wa ma abaahu yabaa kon kooku bëgg ngay def ñu kooku kon nañ ci suñu lépp am jom am ngor doon ay taalibe aussi bëgg suñ Tuubaa te xam ab taalibe day nekk suñu jub day fàttali bu baax ko bon fàtte dee rek day waral dina moom bu dul ko na fàtte dee kenn dootul yow ko meew wax nga ko léegi am ay xale yu yore di ko xale yu di wax malakal motu naan ko malakal motu bu di wëp daa yero bu am na xale yu am na xale ñoo ñoo xamadi suñu borom seen morom ki jël Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jël suñ Tuubaa jël suñ Saliou li ñu jël seen cër jënd faal mais bàyyi faal yëpp yaakaaroon kooku du moromu kenn wasalaamaaleykum